li ñu bokk jàpp daal te mën ñu xar ñaar dañ ko war a waxtaane moo tax ci la oote woon ñu waxtaan bu ñu tur ñu am ay consensus ci ay programme yu bari xam am nañ ko ci biir loolu li ñu lañ ni ñu waxtaan ni mënuñoo bañ a dem mënuñoo def élection te audité wuñu fichier bi ak processus électoral bi ñu ne waatee mën ñoo dem élection te évalué wuñu élection présidentielle yi ñu mën ñoo dem élection te discuter wuñu encore ci parrainage bi dañ koy bàyyi ou duñ ko bàyyi nous avons dem élection tamit ñu encore ci caution mais yu bëri ñu wax ko yooyu buñ ci nous dem avons ñu nous ñu dit. ah comme nous ko avons am nous bëgg dara contraire Nous loolu avons des le premier décembre xel mën na nangu nous avons ko reposer. su lu sérieux la ñu nous consensus

te bu collectivité territoriale bu amee doole état day am doole même nomenclature yi xool nañ ko dafa obsolète te yooyu war nañ ci mën a waxtaanaat mën nañ waxtaanaat encore ci commune yi bees yi nga xam ni tey ay comité rural la ñu woon te dañ leen war a délimiter par un décret te chef de village yi fa nekk ba tey aujourd'hui ñoom ñooy nekk te ay délégué de quartier la ñu war dool yëpp ay réformes ya nga xam ni war nañ ko war a mën a liggéey incohérence bi war nañ ko xoolaat loolu war nañ ko wax ci dialogue bi parce que gis ngeen tay ji collectivité locale yu bëri territoire nu mu demee te xam nga lan lañ lañ ko daggoon te bu njëkk ba loolu war nañ ci discuter waat te loolu buñ ko bëggee discuter am ay collectivités territoriale yu forte te am solo conseil yi nga xam ne aussi ñoo nekk ci di ñëw chaque fois même ay indemnité transport yooyu yëpp amuñu ko loolu lépp lu ñu war a discuter waat la moo tax ma jàpp ni ma jàpp ni cher collègue honorable député aujourd'hui nous avons l'histoire nous avons rendez-vous avec l'histoire et l'histoire un jour retiendra nous avons ñoo voté la nga Mais ne dañu am collectivités territoriales yu forte yu am doole ay maires yi nga xam ay élus locaux statut pouvoir na leen ba collectivités territoriales am doole su ko defee état bi mu a lootu ko kon de tax ñun voté ni Sénégal ben lañ ko